Hallelujah. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم بوكي جليتي السلام عليكم بوكي طالبي نونغي ام بيتي دلو سيوات اكيان في تي راديو خاصي اونلاين تي سين ايميشن جاسبورا نينكوي ديفي ديماش بو جوت تي وقت وي ngeen ci ànd ak seen bokkum taalibe ak dem ba ja fii ci Pontedera ci xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall euh, di ziar sunu naataangoo yi sëriñ Pape Mokhtar Tall fu la ca Parm ak alaaji Cheikh Mbacke Mbuub géwul Xaadim Rasool moom it jamono yi dañoo féete Touba ñu leen di ziar bu baax ci e, ñàkk jokkoo bi waaye ci e, dëkk dëkkam sell bee ñu nekk di ziar ñëpp nag te jiital ci ziar bi suñu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Tuuba Cheikh Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér e, di ñaanal di ziar mbooleem kilifa diine rawatina Cheikh yi sëriñ Tuuba yi di ziar it suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo bokk Sénégal yàlla dogal euh, ku ci nekk yor ci say nekk ci say yoonu bopp moo xam communauté chrétienne bi nga xam ni moo nekk fii te di ñu bàyyi xel saa su ne euh, di ziar it euh, waa rajo bi di ci jiital sëriñ Mouhamadou Mbacke sëriñ Ibrahima Ndiaye mu mel ni buñ leen yóbbantee suñu ziar rek euh, euh, nuyu nañu euh, mbokki yi ñu bokkal rajo bi yëpp amaat mbégte dellu si waat tey jii nag di première émission ci deux mille vingt bi def lu dul Euh, ziar leen ci at mu bees mi nga xam ni moom lañu dugg di doonte mille vingt donte du sunu euh, du sunu référence ci wàllu diine waaye nag ci wàllu àdduna bokk na ci yi nga xam ni moom la ñuy référé woo ndax dëkk boo fa nekkee. Euh, maanaam eh, muy doxe ab yoon mu ne suta ñàkk eh, tënku ci doxin woowu ñu xam ni kon dugg nañ ci at mu bees eh, ñuy ñaanal nag mbépp sénégalais ak doomu adama ak mi nekk atum naataange atum jàmm atum wér atum xewal euh, ñi nekk ci biir yàlla dogal caabi féete leen ginnaaw suñu borom génne leen ñi tëdd am tawat yàlla leen suñu borom yëkkateeg jàmm euh, ñu wér suñu borom dolli leen te may ñu nag ay xewal yu bari di ñaan li nga xam ni ñu ngi koy euh, ruumandaat ci dëkk bi mu di euh, atum sanatoria ndax boo leen déggee jamono yëpp euh, ñun immigré yi ñoo ko doon wax waaye jamono yi mi ngi nekk ci gémmiñu kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ñu ñoo ñu jiite doon at moo xam ne ñi ngi fi ñi fi nekk nekk ci ay difficulté amuñu ay kayit ñi déposé woon ay asile wala ñu jox leen ay kayit yoo xam ni euh, dafa nekk ay kayitu scaren sa jafe lijjanti lool yàlla defal ñu tawféex ba euh, ñu dugg ci at mi seen situation mën a régulariser wu ndax nag jamono ji bari na luñ mm, koy wax te mm, tubaab moom lu mu commencé wax rek fekk na ni xëy na mm, eh, ñàkk ñàkkul ne am na lum ci lum ci lum ci lum ci séntu ndax nag bu ñu eh, bu ñu nax suñu bopp eh, bu ñu demee ba tubaab bi di xalaat ngir may këyit def ko ndax dafa bëgg dimbali ay nit euh, lu ci ëpp buñ koy def dañ ciy jublu ngir euh, seenu kees ñu am lu ci dolleeku ndax ñëpp gis nañ ni jamono yi crise économique bi sonal na dëkk bi euh, jafe-jafe yi bari na liggéey bi nga xam ni nit ñi daan nañ ko am léegi jafe na lool te it boo xoolee saldo entre ñi liggéey ak ñi dem pensionné ak ñi juddu ak ñi faatu dafa déficitaire loolu euh, euh, dafa bari luñ ci mën a njàngat ndax bu ñu xoolee nee ci at yi général maanaam ci fanweeri at yi ñu dem yëpp Euh, deux mille dix neuf bii la ñuy doog am saldo négatif ci wàllu ju diggante juddu ak faatu maanaam ñi faatu ñoo ëpp ñi juddu euh, loolu dafay doon lu lu ragal ñu dool si waat ñu ne euh, daanaka liy dem pensionné ak ñi am ñi romb juróom benn fukki at jëm kaw ñoo ëpp daanaka boo xoolee léegi daanaka ñooy ñooy ñooy ñooy dem ngir ëpp ci population bi loolu nag buñ koy def euh, dafay indi ay ay laaj yu bari loolu euh, dafay euh, indi tey ji gouvernement bi pour mu mën a indi oxygène ñuy wax ni fii ci dëkk bi six cent mille juróomi juróom benni téeméeri junni doomu aadama ñi ngi fi yoo xam ne amuñu kayit ñiy jaar ci géej gi ñiy ñëw ci yoon wu ne loolu mun a indi mm, indi indi bunt boo xam ni tey jii buñ ne dañuy may kayit duñu ñëw maye maye bi dañ ci teg ay condition ndax ñëpp gis nañ sénateur yi fi am Euh, dañuy ñëw euh, tegal la ay conditions ni la par exemple da ngay fay una tantum da ngay defar contrat par force ndax contrat bi daf lay génnee ci situation de irrégularité dugal la ci situation de régularité su boobaa moo xam domestique ngay doon euh, waaye moom par force ngay am contrat contrat boobu moo lay dugal ci monde del lavoro obligé la nga fay ay contributi tey jii buñ ne da ngay da ngay saldaare juróom benn weer comme genre sanction def ko una tantum boo ko xaymaa gën gaa néew defe naa ni buñ dana dugal lu mu gën a tuuti euh, doué à treize milliards yi di euro ci keesu nguur gi kon euh, dana nekk lu am solo loo xam ni euh, xëy na ñun dañuy yaakaar ni ñun rek ñoo ci bénéficier waaye dona dona lay doon ni ni ni niñ ci yaakaaree eh, génn ci njëriñ gis ci sunu njëriñ noonu la ci état bi di amee ak njëriñam ndax dafay injecté ay liggéeykat yu bees ci système euh, système mu IMSS ñooñu war a taxaw tey jii ndax bu ñu bu ñu demee nga gis six cent mille nouveaux travailleurs yu war a ñëw di fay ay contribution te ñu dem pensionné mu leer la ne dinañu combler gën gaa néew dix pour cent ci ay pensionnaires yoo xam ni dañ leen dañ leen mën a ay ay ay ay ay ay projection la yu may def nii rek ci sama bopp waaye romb na ko chiffre yi eh, nga xam ni tey jii Euh, buñ la nee première permesso di soggiorno rek euh, nga xool tey jii boo jëlee li gën tuuti ñu ne la euh, boo demee questura première permesso bi di nga fay marque de bollo bu seize euro par exemple bollettino bu quatre vingt euro ak ak busta bu trente euro loolu rek boo ko xaymaa daanaka dem na dem na romb na a na cent cent dix cent dix euros tey jii cent dix euros yooyu boo ko multiplier par six cent mille wala bañu bañu juum sax nga def ko quatre cent mille quatre cent mille euh, boo paree nag doog ci dugal contribution IMSS yi nga xam ni tey ji en général bu ñuy wax waxi waxi kayit lu ci ëpp dañ lay fayloo juróom benn weer moo xam ñetti weer nga xam ni una tantum lay doon kon nañu xam ni euh, nun lu ci ëpp immigré yi ñoom ñoo tuutil seen bopp waaye e, e, doole ji ñu am boo demee bay teg chiffres yi ba commencé teg calcul yi rek da tiit euh, loolu nag nañ ci rafet njort ñaan te xam ni suñu borom euh, lu jot rek mu yomb defe naa 2013 la lañu mujjee def sanatoria ci Moroni di ñaanat suñu borom tollanti ko waat ndax ba xale yu fi ñëw ay borom kër yu fi nekk lay ndeysaan ay ata a ngi nii dem seen kër donte itali sax moom boo fi nekkee nekk ci yoon daanaka mën nga fay def fukki at day liggéey wàcc tëdd ngay def mën nga yàlla mën na laa musal ci ci ci xew-xew yu bari kon daal at mu bees mi ñu ngi ñaanal euh, suñu borom wàcc fi dem waaye bu dee moo gën ci ñun mu defal ñu tawfeex boobu ba ñi nga xam ni dañu am jafe-jafe kayit ñu mën koo ñu mën koo saafara di ziar it auditeurs yi nga xam ni saa su ne ñun ak ñoom euh, ñooy bokk émission bi. Euh, muy ziar sama sama jëwriñ sëñ Saar Siise di ko wax ñu nañ la lool euh, sëñ mbay gi mbay bu ansaar euh, sëñ mbay mbay mbeng bu Livorno soxna may Jóob sëñ Modu Mbasa suñu jëwriñ ak mbokk yi nga xam ni rek saa su ne daanaka buñ la gisee nga dugg rek ñu ànd ak yow ba ba ngay génn soxna Bousso Niass mm, di di ziar mbokk yëpp rek euh, di leen xamal ni dellu si waat nañu tey jii nag moom daanaka euh, euh, nammante la ak xëy na joxe information yu bees ci wàllu lu fi bees rek mel ni buñ doon commencé tey jii xanaa mun nañu dugg rek ci lii nga xam ni daanaka moo ne kët ni jonn commencé depuis at mu bees mi ñu koy woowee certification ne ISE nekk euh, li nga xam ni léegi mën naa ni nit mu ne surtout ko ñàkk ci réew mi boo amee kayit rawatina booy rey njaboot moo xam njaboot gi di fréquenté scola li tàmbalee nido ba université ku ci nekk mu ne su ko ñàkk ci dëkk bi ndax bu dee da nga war a def ay visit bu dee da war a am exemption wala sax nga war nga war a def lu mel ni par exemple reddito di cittadinanza wala ngay demander bonus PP lépp lu mu mënti doon daanaka euh, loolu Euh, mu ne su ko ñàkk bañ am ñuy wooye certification ne ISEC nga xam ni euh, patronat yooyu ñoo koy defar tey ji <coughs> boo koy defar ren ji certification bi mi ngi basé wu ci kudd bi nga amoon deux mille mu nekkoon réditu deux mille dix huit ñu bari dañuy juum yaakaar ni euh, par exemple kudd deux mille vingt ngay joxe déedéet mu ngi basé wu ci rédito yi nga xam ni am nga ko ba pare donc foofu lu yomb la daanaka ren nag dafa am soppite coppite gi moo di euh, tey jii euh, boo ko tàmmoon di ko def ci benn patronato euh, amuloo lenn lu varié daanaka amul lenn lu ñu lay defal da ngay dem rek signé mandat di assistance yi ñu renouveler ko ndax état bi dafay am accès ci banque de données bi directement léegi loolu euh, li ñuy wax rek maanaam dëkk bi dem nañ ba nga xam ni euh, mënatuñu rëcc ci lenn euh, suñu lépp daanaka état bi daf koy contrôler mu mel ni tey jii boo changé wul adresse par exemple li war nga mën a dem yóbbu ay documents yu bees ci biir patronat bi mooy nga am Euh, ku dëkk ku bees ci biir kër gi moo xam doom ju fa juddu moo xam ku fa am résidence bu bees wala nga changer oto par exemple oto wala boog euh, euh, daaw contrat bi nga yoroon bokkul ak contrat afitu ndax da ngaa changé parce que même boo changé tey jii te say données bancaires yu yëpp dara changé wu ci fa nga ko defee woon boo fa delloo la soppeeku woon rek ngay yóbbu kon mu mel ni euh, ren use bi lu yomb la man daanaka sama mbokk yi nga xam ni ñu ci bari maa leen ko defaloon daaw dañoo xaw am ak sax ak jaaxle ndax ren bi ñuy ñëw ndeysaan buuxante yi ba yegsi ci man bi ñu yegsee ma ni la sa use jar demal nga toog defaral naa la ko nga ni ma waaw maa ngi doon déposé man la yooyu yëpp dara jaru ko jasen sa média yooyu yëpp dara jaru ko waaye nag bu fekkee mosoo ko def moom day ajo nga dem wutiwaat kayit yooyu yëpp euh, dem dem tàmbali ko nag def ko niñ ko daan defee ñu ngi ziar bu baax sama mbokk seen bi suñ Modou bu li war na xam naa day doog jóg ci bool bi euh, di ko ziar bu baax di ziar mbokki li war yëpp waaye daal ñu xam ni ren ji euh, ise bi yomb na donc ba sax nit mën na koo def biir këram euh, loolu nag euh, du ci sori ndax euh, bëgguma bëgguma ko wax nit mu dugg ci demb ci biir bloqué ndax ñëpp xam nañ ni léegi depuis ñetti at ci ginnaaw moo xam déclaration ne di réditi moo xam certification ne ISE yooyu yëpp mën nga ko defal sa bopp ndax léegi loo gis Euh, mun nga dugg ni ko patronat di defee mun nga dugg ci biir demander say password ba ci IMS sax tey ji nit ki bu amee xarañteef bu liggéeyee ba war a mën a demander lii ñuy wax euh, par exemple disoccupation ne mën na ko defaral boppam mais ci kaw mu mën ko ndax euh, dafa am yu ñu war a allégaré ay documents yoo wala te tey jii assegno familiare nit war na ko mun a dugalal boppam mais loolu euh, euh, damay wax nit ñi ñu tey ci ndax boo ko mënul mën nga bloquer ce dossier ndax buñ demee ba demande bi dugg pour nga dugalaat beneen demande ci biir boo ko mënul modifier day day metti euh, lu mel ni par exemple réditori yi naan sa nit mën na ko demandeel boppam mais yooyu yëpp yu ci lu ci mën ci nekk rek nit ci il faut mu mun a am ak xaranteef boo xam ni dafay mën a dugal boppam ci biir réseau bi xam euh, lu nekk nuñ koy defee euh, waaye nag bu ñu amee ay service yu mel ni patronato yi euh, patronato yi léegi bari na am na sax ay patronato privé waaye ñun ñi nga xam ni ñooy syndicat yu mag yi tey ji su ma koy wax damay wax sugel chise le wil ñoom lu ci ëpp daanaka boo xoolee gratuitement lañ la koy defal service yooyu Euh, yaakaar naa ni jaadu na euh, dem ci service yooyu ñu jàppale la euh, taxaw la taxaw bi gën a sell ba nga xam ni doo doo juum koppar yi nga bu dee da nga war a dugal ay koppar nga war ko mën a jël ci waxtu ba nga ko war a mën a jël waaye boo ci jéemee def maasu seer gi bëgg xaalis yaakaar ni boo demee sa kër war nga ko mën a def ba dugal ci loo xam ni Euh, manam waru suko def euh mën nga am ay jafé jafé kon mbokk yi nañu xamni euh isé bi euh nonu la depo di fatali tam nit secteur agriculture depuis le 1er janvier le 2 janvier fi le 31 mars disoccupation agriculture yi nga xam ni dañ ko daan dugal ak mu jox mënees na ñoo dem fañ ko daan dugalee tàmbali koo dugal euh, ngir mën a yaakaar diggante mai juin ñu fay leen seen disoccupation ne ndax ñoom euh, façon disoccupation ne bi ñoo am bokkul ak ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ci secteur bi nga xam ni moo génn secteur non agricole ñooñu daanaka boo arrêté rek da ngay dem euh, amortisateur social bi dañ la koy jox ci saa si euh, calculer la ko nga mën di ko fayeeku weer bu dee bu nekk ba ba muy jeex nga mën ci sax dugal say say assainissement familial waaye ñi nga xam ni dañu nekk ci secteur agriculture ñooñu par exemple dañoo am beneen système ñoom benn yoon lañ koy dugal ci at bi diggante janvier ak mars euh, bu fekkee it seen njaboot ñi ngi fi assegno yi tam ci période boobu lañ koy mun a fayeeku bu fekkente ni a tempo à euh, détermination lañ yore loolu nag euh, man ak Pape Makhtar ndeysaan maa ngi koy ziar bu baax ñu ngi déggante sànq rek ma nga Sénégal yàlla na ko suñu borom may ay vacances yu jàmm mu dellu si waat rek jàmm allah di ko ziar di ziar njabootam yëpp di ziar it suñu suñu naataangoo soxna Selli soxna Selli kan euh, ak mbokk yi nga xam ni ñoom lañu bokkal liggéeyu kares bi yëpp ñoo ngi leen di ziar di ziar it euh, sëñ Badara Seck dinaa ci dugg ndax Badara artiste la bu nekk Rome xëy ñu bari xam nañ ko ndeysaan danoo bokk kares ndeysaan mu yore secteur euh, culture bi ren ji mu def benn film bu am solo moom ak Keko Zalone toolo toolo ak ay Sénégal yu bari Euh, waaye film bi dafa doon film bu bu am solo boo xam ni euh, damay ñaan sénégalais yi ñu dem seetaan ko reetaanlu na nag lool waaye dafa am benn njàngat bu ci am xëy na ku ko seetaan da yaakaar ni ci immigré yi lañuy wax euh, film bi ki ko def maanaam jikkooy italien yi lay raconté ci biir film bi daanaka bo xolé dafa xawa am côté humanisme euh euh ay sénégalais def ko nak vraiment mu doon sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu euh vraiment ñu ci sante ñëpp gis euh ci début janvier bi ndeysaan euh, Keko Zalone euh, succès bi mu ci am euh mu nekk succès sénégalais yi ndax lu sénégalais am rek manam morom sénégalais war na ci bëgg rawatina nag mu nekk loo xam ni lu adduna bi yëpp war a war a mën a bëggee la comme niñ ko euh, niñ ko amee woon ndeysaan ci sunu mbokk moomu nga xam ni donte sax euh, man daanaka du may suivre loolu euh, Sadio Mané nga xam ni ndeysaan yàlla daf ko jox ndam ci ci ci mbokki naataangoom africain yëpp ñu jox ko ballon d'or ndeysaan li tax ma koy wax mooy dafa am benn côté boo xam ni dafa mat roy ndax dafa nekk euh, koo xam ni ndeysaan tey ji maa ngi wax ndeysaan sax di ko yërëm euh, fekk ne moom warax ndeysaan euh, tey jii koo xam ni la muy fayeku mën naa ni ñu koy fayeku senegal dañ leen di wàññi ci ay baaram bokk na ci wala bokk mu nekk africain bi ñu bi gën bari lu muy fayeku ma gis ñu wane ko ci Facebook bi ndeysaan mu yore benn téléphone boo xam ni boo ko xoolee mu nga tojot ba pare ñu defaat beneen témoignage ci boom ci moom euh, maa ngi ko lii sax en italien benn italien moo ko def mu ne leen man du ma dawal Ferrari ndax fa ma jógee Ferrari amu fa donte maa ngi fayeeku loo xam ni mën naa jënd juróom ba fukki Ferrari wala ay montre en diamant ndax village ba ma jógee lekkuñu naanuñu tey jii su ma dawalee Ferrari seen kanam daanaka dafay mel ni damay dam leen di naqaral ma gisaat ko mu amaat beneen image bu yéeme ñu wane ko ci jumaa ji masjid bi nekk Liverpool mu yore raakol di ko raxas ànd ak julli ci foofu kooku de ku mat a joxe exemple la ndax mën naa ni xëy na àdduna taxul mu bew alal taxul mu bew ndax tey ji gis nañ fi euh, ñu nga xam ni ndeysaan euh, toll woon nañ ci jamonoom euh, lu ne lañ leen daan dégg ñu def waykat bu tëgg tuddee leen guddi gi ñu dem fa nekk fa maanaam daanaka nekk icône boo xam ni mën naa ni tey jii duñu positivité ci jeunesse boo xam ni jeunesse bu bu bu jëm kanam la kon tey jii loolu bu amee jaadu na ñu ñu jaar ci sargal ko ñaanal ko ndax it la muy def liggéeyam la waaye it euh, yàqalu ko diineem yàqalu ko comportement am te it tax nañu naw sénégalais ndax tey jii bu fekkente ni senegale bu nekk ñun ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ay ambassadeur lañu ku génn am na loo xam ni boo ko defee Sénégal yëpp dañ koy saagoo waaye it euh, comme ni safaan wi amee am na sénégalais yoo xam ni léeg-léeg bu ñu génnee boo déggee seen tur buñ la laajee ndax sénégalais nga boo moytul dangay joxe beneen nationalité kon euh, yooyu yaakaar naa ni euh, mat naa taxaw seetlu may jéggalu rek ndax dama nekkoon foo xam ni dafa intéressé woon loolu liggéeykat yi ndax jóge ci ay disoccupation agricole di dem ci milliardaire dafa xaw a sori <laughs> moo koy jéglu bu baax waaye eh, comme ni ñuy wax rek tey jii boo nekkee kenn yow eh, léeg-léeg fu sa xel xëcc rek nga yóbbu ko fa maa ngi toll woon ci mm, période de disoccupation agricole bi nga xam ni suñu mbokk yi nekk ci tool yi moom la ñu war a defar eh, ñaari at yu mujj yi dafa am soppite bu ci am Eh, maa ngi nuyu directeur Aliou Ndiaye moom it ndeysaan di ko di ko di ko ziar bu baax ci liggéey bu sell bi nga xam ni mi ko commencé def ci Africa 7 ndeysaan eh, boo leen xoolee eh, dafa bari mbokk yi nga xam ni dañuy dugal disoccupation ba pare lu ci ëpp jamono ji dañu dem Sénégal ñaari at yi yëpp IMSI daf leen di laaj seen passeport bu ñu ñëwee bu leen laajee seen passeport dafay xool timbro bi nga xam ni

Euh, li muy yàgg Sénégal euh, kon na ñuy bàyyi xel xam ni gars yi bàyyeetuñu dara léegi lépp dañ koy contrôlé ndax boo xoolee même ki nga xam ni tey jii dafa déposé nas bi si yoon warul génn territoire bi ndax euh, disoccupatione misure di sostegno la maanaam ki nga xam ni dafa liggéey ba pare maanaam liggéeyam jeex mu war a toog pour xaaraat liggéey maanaam diggante bi muy toog du liggéey ñu am as njàppandal buñ koy jox état bi di ko ko jox loolu mooy waral euh, muy mu lay defloo ay colloque yow léegi-léegi sax da ngay gis par exemple en général ñi nga xam ne dañu nekk désoccupationné bu ñu demee ci centro per l'impiego yi bu ñu leen di defal ay formation formation yëpp gratuite lay nekk pour ñu mën leen colloquer le plus rapidement possible euh, kon Euh, nañu waajal li nga xam ni moo di disoccupation agriculture yi euh, lu ci ëpp man damay woo dama daan wax sénégalais yi nga xam ni ñoo féete Toscana man dama leen ko wax ni leen en général leen am habitude ñu ci bari comme dañuy dem Sénégal balaa ñuy dem Sénégal ñu joxe dem ci seen dem ci seen représentant syndical yi nga xam ni ñoo leen fi féete nekkal lu ci ëpp en général da ngay gis sax ni yore secteur agriculture bi bari na ñoo xam ni dañuy dem laaj ko. demander document yëpp pour préparer ko ba nga xam ni buñ ci tolloo ñu mën leen ko dugalal ndax dem Sénégal léegi-léegi dem fa benn jamono boo xam ni day ndeysaan say vacances day neex nga mujjee obligé pour ñibbi si parce que da nga am maanaam cadence sa boo xam ni boo ko deful fii dix jours wala une semaine euh, da ngay ñàkk sa xaalis loolu lu lu mun ñàkk la kon ni ñuy am habitude toujours bañ di def toujours rek dans Euh, dans la précipitation ndax loolu mooy suñu défaut toujours rek dañuy toog ba lenn ni kër si ni jonn ñu jóg par exemple euh, lii dama ko war a def tey wala suba man léeg-léeg da gis sénégalais bu ma woo dimanche wala vendredi wala samedi matin ni ma dama bëgg nga dimbali ma dugalal ma disoccupation ne parce que dama war a dem Sénégal lundi wala mardi man dama lay wax ni la même su ma ko dugalee itam da ngay am jafe-jafe ndax boo xoolee su ma la dugalee disoccupation bi ci weekend bi nga war a xëy war nga mun a dem da nga war a dem impérativement centro per l'impiego pour def euh, def colloquio bi euh, def def def def colloquio bi yóbbaale richibuta beeg contrat yi nga xam ni moom nga jeexaloon ñu defal la colloquio joxaat la rendez pour beneen colloquio bi donc yooyu yëpp ay phase la yoo xam ni euh, liggéeykat bi daf ko war a def waajal boppam ba nga xam ni maanaam mm, yooyu euh, du ko du ko du ko du ko du ko du ko dal mais aussi euh, euh, ñu xam aussi par exemple lu ci ëpp disoccupation ne waroo ko am par exemple dem tëddi nelaw parce que bari na xeet classe ñoom sayr yi bu ñu leen joxee disoccupation ne par exemple say cinq journée wala wala nangami ñaari at ñu nekkoon sama sama samay mbir baax na naa dem tëddi dañ may fay te xamuñu ne par exemple euh, euh, daanaka disoccupation ni bi boo rombee trois premiers mois yi rek dafay commencé di wàcc ñu koy dagg weer wu jot euh, très percento im meeno xam nga ak fii ñu gis léegi daanaka naspi bi na mu na na na na disoccupation ne bu njëkkoon meloon bii melatu ko en plus boo ko amee am chance di liggéey dafay doon benn euh, salvagente boo xam ni da lay mën a jàppale ndax tey jii boo xoolee euh, euh, li gën a jafe mooy nga am contrat boo xam ni dafay gudd lu ci ëpp contrat yi boo leen xoolee ci feet yi dañ koy dagg kon tey jii boo amee disoccupation ne da lay da lay may possibilité tey nit ki buñ ko jëlee par exemple avril ba juin wala avril ba juillet mu war a toog agosto bi du liggéey diggante boobu par exemple bu matul six mois Euh, disoccupation bi dafay dafay dafay tàmbaliwaat nga xam ni bu tàmbaliwaatee diggante bi ngay toog te ni da am salaire comme comme comme ñi ñi ñi ñi nga xam ni ñooy liggéey à tempo déterminato buñ la woowaatee nga defaat communication bi mu arrêté kon nañu xam ni maanaam disoccupation bi daanaka daf lay daf lay jëriñ comme réeru secours ñu bañ euh, di ko di ko di ko di ko di ko di ko lekk d'un seul coup ndax léegi léeg nit ki yaakaar na ni boo amee disoccupation la rek mën naa dem tëddi euh, bu tëddee euh, lekk lépp bu paree daanaka pour mu mun a amaat disoccupation ne dafay liggéey ba sonn donc donc pour mu recharger waat euh, ay batterie ba mën a ba mën a amaat lii nga xam ni mooy disoccupation bi lu jafe la waaye it ñu xam ni ren ji état bi mi ngi def ay effort ndax am na loi bu ñu voté Euh, ci semaine bi passé mu nekk kunéew fiscal ay grave la yoo xam ni maanaam xeetu jàppandal ci wàllu bourse paga yi incha allah mi ngi tàmbali le premier juillet dinañ ci ñëwaat bu pap ñëwee ñu ci mën a dugg détail euh, dina am maanaam euh, yokkute bu ñuy am yaakaar ni dinañ ko gis ci bourse yi waaye nag damay waxaat toujours Italie rek Italie moom dafa nekk dëkk boo xam ni dañ lay jox ak ndeyjoor bi nangu ko càmmoñ bi moo tax toujours man bu bu yenn euh, xeetu nouvelles yi génnee ñu koy wax ni daanaka <clears throat> duma ci sawar gis naa nag ñu bari commencé ko dugal euh, sénégalais bu ñu gisee chiffres yi rek tem ñu yaakaar ni xaalis bi noonu lañ la koy joxee parce que gis naa ñu commencé dugal de nangam à nangam mille six cent euros loolu bare mu mode de calcul bi la waaye nag nañu xam ni euh, état bi am na ay jàppandal yu mu def Euh, ci pension itam euh, ñu ngi ci ñu ngi ci dugal jéem dugal ay modifier mais ba léegi daanaka ñu ngi ci soixante sept ans yi donc euh, léegi cento bi ba léegi daanaka dindeeguñ ko dëkk bi daanaka mun naa ni ñu nag français yi wute nañ ndax boo leen xoolee français yi depuis mois de décembre ba léegi transport beeg yëpp ñu ngi grève pour maanaam bañ a dépasser soixante quatre ans pour dem pensionné ñu ni Italie daanaka yokk nañ ci yeneen ñetti at euh, kon mel ni euh, xëy na mode de dëkk yi euh, ñoo bokkul xëy na ni ñuy xeexee waaye français boo leen xoolee daanaka détermination bi ñu am maanaam pour mën a xeex seeni droit dafa yéeme boo leen xoolee ji jaunes yi rek ay tegtal lañ ci waaye ñun fii boo ko xoolee boo ko jëlee ci ñun Sénégalais yi rek daanaka da ngay xam da ngay da ngay ba sax da ngay waaru ndax ñun dañu ñëw roy italien yi gën leen a gën leen gën leen a miin yëf yi tey jii boo xoolee génnee Sénégalais sax mu dem manifester lu jafe la te pourtant de euh, bi fi Sénégalais yi gën a néew euh, ci ci diggante mën naa ni quatre-vingt-dix ba année deux mille italiens yi xeet sénégalais yi xeetu manifestation bu nekk jiite nañ ko fi waaye léegi mën naa ni daanaka lañu nañu toll nañu toll woon mën naa ni yokk nañ ci ñett ba ñeenti yoon suma juumul sax ba ni juróomi yoon waaye mën naa ni lañ daan am sax ca jamono yooyu mënatuñ ko am ci mbooloo loolu it xëy na dafay dafay dafay tax suñu ay mbir di gën a dëgër ndax it euh, li ñuy wax rek ñaxtu moom kenn mënu koo defal kenn ku ci nekk sa say mbébét yaa koy ñaxtul sa bopp lala euh, metti boo jógul xulta pour ñu lijjanti la ko dana metti loolu euh, ba ba ci sunu sunu sunu sunu sunu problème yi ngeen di gis moo xam problème administratif au niveau des consuls moo xam leneen lu mu mënti doon pour nga gis daanaka ñu jóg ci wàllu taxaw ci ay bataille citoyenne lu lu jafe la ci ñun loolu nag xëy na génération yi ñoo ko ñoo ñoo bokkul xëy na parce que parce que lu bari xëy na dañ leen ko euh, xeexal ba nga xam ni ñoom yaakaar nañ ni daanaka dañuy euh, dañuy dañuy euh, dañuy toog rek ñu ñu ñu ñu ñu jox leen lépp loolu nag lu lu seetaat la kon mbokk yi noo ngi leen di fàttali rek yéen a ngi déglu seen émission diaspora fii ci rajo xasida online ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Pape Demba Dia fii ci Pontedera ci xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ci Milan su joo sëriñ Mountakha Mbacké tey jii nag euh, di première émission diaspora ñu ci ànd di euh, di fàttaliku rek xew-xew yi nga xam ni moom mooy tàmbali ci ci at mu bees mi euh, di ay échéance euh, ak it euh, li nga xam ni moo ñuy xaar xëy na ci at mi xam naa du ñàkk sax jamono yi beneen bés danañ toogaat waxtaan ci wàllu immigration bi Italie ndax defe naa ni deux mille dix bi fii ak ay weer dinañu mun a am ay statistiques yoo xam ni Euh, dinañ ci mën a def ay njàngat yoo xam ni yu jëm ci wàllu immigration la boo xoolee euh, at mi ñu weesu mën naa ni immigration italienne dafa commencé rës euh, ni ruée bi fi daan am wax dëgg fa yàlla amatu fi bari na ay Sénégalais yu fi nekk yoo xam ni daanaka ñoom ñëpp léegi ñi ngi ñi ngi daaw jëm yeneen i gox lu mel ni Londres lu melni Paris lu melni Allemagne France loolu it nekk benn laaj boo xam ni war nañ ci taxaw def ci ab la lan moo waral daanaka Italie daanaka boo ko xoolee mën naa ni léegi daanaka dafay perte valeur ndax boo xoolee ñu ci bari bu ñu demee ba toll fi nga xam ni tey jii l'immigration nekk na au sommet au top moo xam reconnaître nañ leen ni euh, parcours bi ñu waroon def yëpp matalal nañ ko ndax ki ñëw fii doon clandestin di raam di jaayantu euh, ba am sagaru këyitam commencé liggéey euh, di jàng am ay compétence am ba ba ba dem ba jël li nga xam ni moo di maanaam li fi gën a di chita naan ni ko fi ñëkk bàyyiwaat ko fi dem ànd ak ay doomu italien ndax boo xoolee euh, ni immigré yi di demee noonu tam la italien yi di di dem daanaka nee nañu ak mu jot huit cent mille jeunes dañuy bàyyi dëkk bi dem loolu nag nekk euh, ab laaj bu ñu war a toog laajaat ko euh, lan mooy le le problème italien pourquoi ak it ñu seetlu tam lu ci bari ci immigration italienne fii euh, par rapport ak mm, yeneen immigration bu mel ni par exemple ñi nga xam ne ñooy nekk ay ay ay ay ay ay Allemagne wala xeetu France wala sax Amérique euh, ñi ñuy euh, ñëwee def projet ci dëkk yooyu nga xam ni dañuy am projet am vision boo xam ni sur l'immigration xamal ne ñoom dañuy ñëw pour créer toutes les conditions moo xam jënd kër indi seen njaboot commencé ci communauté bi euh, dafa lu bari euh, ci ci ci ci ci ci fànn boobu li immigration mën naa ni xamuma sax ban système lañ ko war a tuddee ndax liggéey wàcc tëdd lañu ñu def lu ci bari euh, doom yi buñ fi juddoo daanaka nu ñu mën a def bu ñu sawree ko amee possibilité dañ leen di yóbbu euh, bu ñu amul possibilité daanaka dañ leen fi tey mal malgré ñun euh, ak manque de vision boo xam ni daanaka boo xoolee ci dëkk yi amul gul benn projet boo xam ni da nga ko don projet bu concret boo xam ni dañuy ni commune communauté bi ñi ngi préparer <clears throat> la la seconde génération pour que ñu mën am insertion boo xam ni dina nek euh, une insertion digne euh, dootul nek rek euh, madame dans l'informel waaye dafay fait nek lo ni. gone yi dañuy euh, dañuy envahir euh, communauté maanaam structure communauté bi yëpp moo xam ci wàllu njàng mi moo xam ci wàllu liggéey bi secteur yëpp ba nga xam ni tey ji euh, da lay leer ni fii fukki at au moins génération bii di ñëw du ñu jaaxle ci seen wàllu nekkin fii mais boo ko xoolee daanaka tey jii fukki dëkk yoo jël Euh, boo ko xoolee mën naa ni ci biir dëkk yi nga xam ni sax da nga ci am yaakaar euh, pourcentage bi da ngay wax ay zéro virgule cinq wala euh, wala wala wala wala wala wala wala wala lu ko yées ko li ko waral moo di manque de de de vision bi nga xam ni communauté bi am na ko ci wàllu euh, taxaw bi tey jii immigration may saluer bu baax nag euh, ay exemple dafay mën a doon seede wala doon référence ba euh, génération yi mën ci mën ci mën ci mën ci réalité bu Milan amna fa par exemple lu melni modèle. nga xamni euh ndaw yi fofu euh commencé eh, jang eh, dugg ci université yi ñoko a euh lu melni par exemple Brescia keppaaru ndaw yi nga xamni euh Babacar mu ci and ak euh, association euh, bu Brescia provinciale association incha allah bu Brescia maa ngi nuyu Seydina Camara ak euh, euh, par exemple fi nga xamni moy zone bi ma dëkk ra Wakanda xalé yi nga xamni ñom ñoo nekk g euh mu nekk ay ay ay exemple yu raar yoo xam ni xëy na euh, dafay jaadu leg léeg ñu koy citer en exemple dëkk yi commencé di def ay réflexion pour jër ndaw yi daayira yi par exemple man Euh, li ma gis daayira murit yi ñi ngi ñi ngi yëngatu mais yëngatu bi dafa des bu baax ndax dañu xaw tëju tout tànk yi dañu tëju euh, trop euh, dañu dañu dañu am exclusion defuñu li nga xam ni moo di ubbeeku moo di daayira tout tànk yi nga xam ni tout tànk yi léegi commencé nañu ñun ñëpp di ànd ensemble di fréquentante mais boo xoolee lu ci ëpp daanaka man li ma xamagum bopp c'est dans le cadre des daayira Euh, nga xam ni tey jii ñoom euh, boo génnee secteuru euh, daayire rek dafay dafay dafay nekk lu lu limité mënoon par exemple tey jii ci biir daayire yi ñu mënoon cee ubbeeku tey jii nga xam ni gone yi nga xam ni ñoo féete ndaw ñu féete mag war leen mën a defal yi ñuy wax tutoring di leen taxaw ci wàllum njàng mi ndax tey nit ki pour nga mun koo mun koo mën laa déggal il faut nga koy dimbalee ci benn boor ñuy laayan ci biir bañ a nekk rek nit ki bu bu ko yàlla jubluwul ci ci ci diine wala ci xasida ndàngam peut-être wala ci ci ci daayira bi doo ko mën a jàppale non mais war nañu mën a dem ubbeeku ba nga xam ni tey jii euh, yenn yenn catégorie yi nga xam ni euh, xëy na euh, fekk ñu leen ci biir daara ji ñu jëli leen ci biti loolu dafay nekk une opportunité sax pour ñoom ñu fekk si la ci biir daara ji mu bañ a nekk rek moment bu ñu gisee par exemple dañuy sol euh, baylaat wala suñ son bu toog euh, di kuréel war nañu mën a toog euh, ndax génération bi nga xam ni ñoo war a jiite daayira yi man dama gëm ni prochaine génération bi dafa war a nekk génération boo xam ni dafa war a mën a taxaw di di di di confronté wu ak génération bi mu nekkal fii moo xam ay tubaab lañu moo xam communauté sénégalaise bi lañ euh, ku mu mënti doon rek waaye war nañu mun a am ak ak ak ak ak ak xam ni euh, fu ñu woo rek war nañ leen ci mën a wuyu bu ñu woowee ci xam euh, taxaw fa am fa boo xam ni mm-hmm. dañ leen a waaye bu ñu ci wàllu adduna bi moo xam li nga xam ni moom la nit ñi di tàmm di étiqueté lu nuru politique ndax boo xoolee te jii wàllu associationnisme euh, fuñ ko laalee rek euh, euh, dañ lay étiqueté daanaka ni lay yi fi tubaab yi politiciens yi fekkante ne maanaam boobu ñaar ñooñu kenn mënta dem bàyyi sa morom ndax tey jii ki nga xam ni mooy taxaw ci wàllu àdduna bu taxawalul wàllu àdduna bi Euh, euh, ka nekk ci wàllu diine bi du mën a dox ndax maanaam charte yi koy téye garantie yi nga xam ni euh, moo ko war a taxawal yëpp daanaka fële lañ koy bindee kon war nañ mun a am as boo xam ni dana nekk loo xam ni luy luy luy luy joxe ay opportunité la opportunité xale yi ba nga xam ni dañuy gën sawar di ñëw am na nag ay daayira yoo xam ni weekend yi dañuy ñëw indi seen i kayit jàng fa euh, vraiment ñi ngi def li ñu mën mais ñu commencé di def ay projet yoo xam ni wax dëgg fa yàlla dafay am ay ressources yoo xam ni dañ ko fay dugal ressource nag buñ ko fay wax dañuy wax dañuy jël fonds boo xam ni dañ koy investir pour ndaw fii nag dafa manqué ci côté boobu wax dëgg fa yàlla ndax boo xoolee euh, am dañu am ñun capacité pour dajale xaalis am nañ ko lool euh, da gis da dem ci daayira yi que ça soit Tijaan Murit Italie capacité bi mu am ci mobiliser fonds ak léeg-léeg sax dajale mbooloo waaye nag wax dëgg fa yàlla investissement yi ñu war a def fii dëgg-dëgg euh, lu ci bari euh, nekk nañ ci en retard retard boobu nag bu ñu teelul ressaisir dinañu dinañu dinañu payer les pots cassés fukki at ndax tey jii da gis euh, dama koy wax ci lu bari ngay gis gone yoo xam ni tey jii bu doon euh, dañu toog ci benn environnement kese moo xam fii moo xam Sénégal euh, niveau bi ñuy jàng buñ la ko waxee daanaka ñu ngi université mais nga gis leen ñëw fii dem Sénégal daanaka boo xoolee lu ci ëpp dañ leen di wàññi seen at wala ñu delloo leen gannaaw ci wàllu école gën gaa tuuti. benn wala ñaari at euh, loolu euh, euh, handicap la boo xam ni gone yi dañ koy am te it nag war nañ ci war nañ ci war nañ ci bàyyi xel ndax vraiment bokk ak say morom te ji dañuy gis xale bu juddu fii defandoog ay moromam niido dem materne par exemple ba commencé dem alimentaire yóbbu ko daara lu jaadul la waaye léeg-léeg moo tudde calcul bi ñuy def dafay sbaliyaatu ba nga xam ne léeg-léeg bu ñëwee dafay amaatu retard soit xale dañ koy bàyyi ci benn environnement mu jàng fenn def fa cursus am ba mu jeex euh, mais buñ ko bëggee def ping pong rek ba motul dafay jaxasoo te it euh, potentiel bi mu doon am lu ci ëpp dafay daf koy wàññi kon it loolu nañ ci nañ ci bàyyi xel bu baax beneen bi aussi jëm ci euh, li nga xam ni moo di waajur yi euh, dama koy wax toujours ndax euh, mën naa ni boo ñëwee fii ba indi fi sa njaboot wala ngeen indi fi sa soxna mu nekk loo xam ni lu lu destin bi bind la choisiroo ko yàlla may leen ngeen am njaboot li góor lu ba njaboot googu ñu sàmm leen ndax nag euh, boo xoolee fii daanaka bari na euh, njaboot goo xam ni dañu xaw a déséquilibré ndax nag ñaari way dencante yi dañ leen deful priorité ndax bari na soxna yoo xam ni ñu yor seen njaboot di sëy waaye lu ci bari yaakaar nañ ni sëy bi borom kër gi la borom kër gi ndax sëy sa boroom kër euh, warul tax nga prioriser ko ci sa kanamu njaboot tey jii boo amee yëre bu baax yaakaar ni xëy na boo ko sëylul sëy bu kii mu dem wuti beneen soxna ba sax da ngay xaw a wàññi gone yi dangay gis tey jii xale yi dañuy nekk ci kër am problème d'espace euh, daanaka tey jii euh, euh, boo xoolee borom kër gi soxna si daanaka boo xoolee pour sax ñom ñu nek al am touti manam li ñuy wax privacy wala liberté dañuy préférer bay xale yi ñu génn nga xam ni xale bi tay ji bu doon da war a dem defi sport moma bi nga wara xam ni daf ko wara a passé ak papam wala ak yaayam parce que da fay am ay moment yi nga xam ni wajur bi moko ko ji moko mom moom ko ko war jox tay ji lii nga xam ni euh, diggante bi nga xam ni tey jii sa doom day wàcc war la nettali par exemple li mu def école ngeen maanaam mu am benn moment d'interaction nga déglu ko donte sax léeg-léeg li mu lay wax xëy na mën na laa euh, waaye dafay dafay dafay xale bi day soxla ñëw nettali la li mu dund école nettali li mu def moo xam de moo xam dañ koo dañ koo liggéeyloo euh, mu ñëw ci kanamu ay waajuram am satisfaction ni yaay wala papa lii kat maa ko def xool leen liggéey bi mu mel ngeen jox ko si seen kalaat euh, complémentaire wu ni ko ah liggéey bi de am na solo góorgóorlu ni ko ba pare ngeen waxtaan ci discuter parce que xale yi léeg-léeg dañuy am envie am dañu am seen mondo boo xam ni maanaam ñoom la seen seen mondo bopp la euh, day jaadu. parent bi léeg-léeg di ko ci fekk si loolu euh, daanaka loolu la ñuy woowee maanaam yar ak dund ak sa njaboot bokk ak ñoom ay moment yi nga xam ni ñoom dañ koy dund yar du mama maanaam euh, bokk na ci waxtu julli jot ngeen ànd julli euh, maanaam maanaam dund waxtaan maanaam yar di ànd di di di di dund ay épisode maanaam di waxtaan ci lu bari waaye nag dafay am moment boo xam ni gone yi ñoo koy moom euh, yow mun naa ni da ngay ci seen désir moo xam déglu leen moo xam mu bëgg tey jii par exemple euh, euh, bu dee dafa bokk ci ma équipe de foot parce que yooyu itam dafa baax tey jii xale bu ndaw bu nekk fii am fukki at wala am am am am am fukki at ak nangam bu waxtu jàng alxuraan weesoo am na beneen moment boo xam ni Euh, euh, li li tubaab di wax adrénaline daf ko war a génne euh, nga war ko nga war ko déglu ànd ak moom léeg-léeg dafay nekk fierté ci moom ànd ak moom nga yóbbu ko moo xam ci lu mu mën ci def beneen bi di li gën a yéeme ndax xëy na fii peut dañ ci jànkonteel luy lu lu bari te te te te te ñu bari duñ ci am duñ ci am duñ ci am yenn yenn yenn constat yi euh, bari na ay jamono yu ma doon wax ni ñun fii dañ ñun ñu gën a yiitewoo assistante sociale par exemple euh, ay Sénégal ndax fii da ngay gis ku njaboot léeg-léeg du xam nu muy yabare yare njabootam euh, te te njaboot ñu bari dañuy yaakaar ne diggante xale la maanaam foofu daanaka da ngay jubanti rek mais moment bi gën a moy xalé yi bu ñu commencé dugg 15 jëm 18 ans nga xamni tay tey euh dañuy ben, commencé dugg ci adolescence euh li tubab di wax puberté euh puberté nek lu metti ci xalé euh nga euh, xamni euh boo miinee bu fekkente ni yow yarkat nga da ngay da ngay da ngay comprendre xalé leg leg war leen mëna accompagner moy tax xalé yi mëna nga gis am ño xamni une puberté dafay metti seen yaram di transformé wu ñu koy dund ak ak ak ak mettit maanaam di am euh, par exemple euh, xale yu góor ba ci ba ci ba ci soxna yi sax seen nous ñu gis seen kanam yi am ay am ay Nous euh, ñun Sénégal xale bi yaramam day transformé wu mu nekk une nouvelle découverte foofu boo amul ay parents yu yu mën a waxtaan surtout ay jigéen jigéen nga xam ni dafa bari sutura même léeg-léeg même seen doom yu góor yi sax dañuy mën a toog nekk ci ab roq parce que léeg-léeg dañuy gis am na benn moment boo xam ni xale yi bu ñu tolloo ci dix-huit ans bu dee góor dañu am crise boo xam ni même seen waajur wu góor duñu mën a wax ak moom et vice versa hein Euh, léeg leg da ngay gis jigéen ñi ñoom it dañuy am problème boobu dañuy gis soxna yoo xam ne bu ñu tolloo ci leg leg sax bu fekkee seen papa ko am attention la seen papa la ñuy gën a mën a waxal que seen yaay euh, moment boobu dañuy soxla ku ñu waxal xale yi dañuy dañuy nekk ci maanaam dañ leen di ubbil adduna bu bees ñu am ay tentation maanaam adduna nekk loo xam ni daanaka dañuy traverser phase bu bees loolu dañ koy dund fii ak suñu njaboot mais des fois Euh, xëy liggéey wàcc xëy liggéey wàcc euh, samedi nga dem daayira ñëw tëdd dimanche nga nelaw toute la journée dañuy dem ba suñu njaboot yi ñu moom daanaka duñ leen ko jox loolu nag dafa nekk euh, ax boo xam ni parent bu nekk war nga xool yow léeg-léeg boo toogee nga jàkkaarloog seetu nga ni waaw man la ma samay waajur defaloon man lan laa ci defal sama njaboot ndax léeg-léeg bari na ñoo xam ni yaakaar nañ ni bu ñu sorolee seeni doom yëre rafet wala ñu jox leen téléphone bu baax rek seen jàmm wàcc na déedéet euh, def naa ni loolu moo gën a tuuti boo ko doon calculer pourcentage loolu du dara ci yar yar sacrifice la boo xam ni nit ci dafay am patience léeg-léeg nga sax mer mën a mën a contenir sa mer léeg-léeg nga toog foo xam ni Euh, maanaam mm, dafay day am lu tuuti loo xam ni da ngay nekk ci euh, frontière pour péter mais da ngay taxaw contrôlé wu lekk yore li ñuy wax li tubaab di wax self contrôle mën na dellu si waat tudd yàlla waaye toogaat xalaat jëlaat sa njaboot ndax nag njaboot gi euh, mënu fexe ba bu ñu nekk sa sa sa sa sa sa njaboot Euh, bu amee eh, eh, eh, jëwin bu bon yaa koy yóbbu bu amee jëwin bu rafet yaa koy yóbbu kon wax dëgg fa yàlla ñu góorgóorluwaat léeg-léeg ba ñu jël priorité liggéey bi def ko mu doon suñu jaamu yàlla euh, ci àdduna bi si suñu àdduna la bokk euh, mën naa ni fii dafa jël lu bari ci suñu temps waaye it nañu xam ni ñun liggéeykat yi dañoo am ay droit ak ay devoir euh, boo defee si ba pare am nga ay droit yuñ la may mën nga jël ay permis am nga ay yoo xam ni léeg-léeg mën jël ba si sax ñi nga xam ne léeg-léeg euh, am njaboot koo xam ni yàlla dafay def ñu am ay wàññeeku wàññeeku ndax dafay am moom adduna ñoo ñoo ànd tey jii dañuy gis ku am njabootam ci biir këram euh, handicap boo xam ni da koy mën a may euh, ak légitime équateur bi mu mën a jël ay permission ñetti fan ci weer wi di njabootam bu dee dafa am handicap bu léger mu mën a taxaw di ko taxaw euh, boole si ak accompagnement yi nga xam ni moom la état bi di def waaye lu ci mënti am rek ñu xam ni gis nga yàlla lim la may boo ko jëlulee rek yow yaa tooñ sa bopp. aduna euh, nag fii dañ fi nekk euh, mënoo fi nekk ak sa njaboot ba pare li man du ma dund que dafa jaaduwul nekk fi ak sa nekk fi ak say doom euh, ngeen war a mën a dund paisiblement dund seen diine dund maanaam ni gone yi war a mën a dund seen aduna bu ñu nekkoon Sénégal am seeni xarit bu samedi jotee Euh, buñu you jàngee ba nga ànd ak daayira bu daayira ñu par exemple bibliothèque wala xam yeneen fréquentation c'est dans le cadre de la jeunesse boo xam daf leen cultiver cette jeunesse mais du jeunesse par exemple opportunité yooyu euh, euh, cadre de vie bi dafay am problème té bu cadre de vie bi un problème danaka boko xolé Je dem ba instant ngay wax sama wuñu dara eh, amu ci da def li nga cadre familial li ci war euh, sa présence nga joxe sa présence surtout notre affection Euh, ndax ñun sénégalais yi dañu nay ci affection nay ci affection dama koy wax du bari euh, bari na sénégalais yoo xam ni dañu am complex taxaw ak seen doom euh, wan ko cofeel ba mu yëg ni man mii sama baay bëgg na ma cofeel nag wan du ay geste la ay ay jëfin la yoo xam ni ak waxin goo xam ni ñu ko tubaab bi di defee waaye ñun it ñu am suñu façon ak culture boo xam ni boo ko defee sa njaboot dinañ xam ni ah ñun de suñu baay bi ku ñu bëgg la ku ñu fonk la ku ñu toppatoo la ku ñeme nekk ak ñun la ba nga xam ni sa njaboot dinañ mën a dund du ñu détraqué parce que nag ñu wax ko rek euh, Europe fii rawatina ñun Italie bari nañ su ay doom yoo xam ni ak ñun suñu njaboot gi daanaka ñun ñëpp dañu nekk ci benn euh, cercle boo xam ni daanaka ñun ñëpp a dañ gis fajar ku ne xëy génn daw dem sa yoon mu ngoonee ñëw dellu si taal suñu télé seetaan suñu suñu théâtre ree xëyaat tëdd nekkaat ci routine boobu fekk ne am na yeneen i yëf yoo xam ni dafay dundal ruu boo xam ni euh, euh, euh, mooy tax cadre familial bi hmm, mën na nekk ci dundin mu sell boo xam ni tey jii ku ci nekk da ngay da ngay da xam ni yow mii sa sa dund mi ngi mi ngi am qualité tey jii euh, euh, euh, dafay am da gis kër yoo xam ni da ngay dem daanaka télé doo ko fa fekk ay téere rek nga fay fekk téere nag bari na téere buñ koy wax dafa yaatu téere lépp lu ñu bind rek téere la waaw ndax nit ki lépp luy développé xam-xamam rek mu ne suñu ko téere tàmbale ci diine tàmbale ci xam-xamu àdduna tàmbalee ko ci xam-xamu euh, bu lay bu lay yokk ci liggéey lépp lépp laa wax xeet yooyu yëpp ay xeetu xam-xam la tey jii euh, da ngay war dafay war a jaadu tey jii euh, sa njaboot bu ñu wàccee bu fa soxna si nekkee ñu def ay atelier maanaam jël li nga xam ni moo di tey jii benn argument liggéey ci def ci ay ay ay ay dessin wala def lecture da koy xool ci kër yooyu boo leen xoolee tey jii nga jël koo xam ni daanaka këram euh, gone yi euh, télé tablette lañu yor lu ci ëpp boo leen xoolee daanaka euh, bu ñu dajee dañuy am différence bu bari yooyu nag dafa mat dafa mat parce que parce que xale noo ko noo ko yaree rek noonu lay dundee gone yi boo leen seen potentiel ñu ko mënee développé maanaam suuxat ko euh, di nga ci am ay ay ay ay ay ay euh, ay ay ay yoo xam ne da da lay ndax euh, gone dafa nekk lu intéressant allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw daal dafa mel ni am na mbokk mu nekk ci biir rek waa waa suñu man la Baye Diouf sama doyen maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar daf mel ni tey wéet nga ci ci sa émission. bi naa wéet naa nag ndax sama gars yi ñoom ñëpp xam nga. waaw euh, occasion la yu mel nii bu amee boo ko xoolee lu ci da ngay def développement boo xam ni à boo xam ni moom. Euh, tey jii nekkoon première euh, émission de l'année. ndeysaan ma am ci ay xalaat yu ma amoon rek daanaka boo xoolee yu ma joxee information rek dama dugg ci cadre de vie bi nga xam ni moom la ñuy dund fi ndax. man noonu la eh, jamono yëpp ci loolu rek laay wax waaye na nga def. maa ngi nii rek pap di kontaan di la maa ngi gis maa ngi gis eh, <laughs> sa sa sa sa sa reportage bi nga def ak eh, association yi femmes yu Mantova yi ndeysaan ñoom soxna Aminta exact ma kontaan bu baax ndax loolu ci ci ci ci ci ci sunu sunu nekkin fii la bokk ndax Euh, ay jigéen ñu jàmbaar ñoo nekk noonu man xam naa leen yàlla dafa dogal. Euh, waaw soxna Aminta seen présidente bi ku ko miin la am ndax man ak moom dañu bokk. benn cadre bu ñuy yëngu ensemble ci wàllu. beneen fànn waaye. Euh, mm-hmm. jigéen bu mën góor a ngi noonu. tout à fait tout à fait. te it nag seen loolu ñu doon ñaxtu lu légitime la. yaakaar ni mm-hmm. lu légitime la. te damay damay wax sax ne euh, lu fekk mu nekk association parce que en général parti politique yi opposition ñoo doon def loolu. Mm-hmm. mais moom nag moom nag mu jël société ne association non profit. ñu mm-hmm. dajale seen membre hein? mm-hmm. ah. loolu da dafa mel ni c'est une première parce que wax dëgg yàlla maa ngi bëgg am ay fan ci Milan mais rarement la gis ay association jóg def loolu sans boole ci sans wax.

te nag kër gañ dem ay jigéen a ko jiite. Mm-hmm. mu mel ni jigéen mu mel ni jigéen yi suñ leen doolelee rek. Mm-hmm. lu bëri am nañ ci xel yoo xam ne doxalin boo xam ne wax dëgg yàlla ñun góor ñu parfois dañ koy xaw a fàtte jiital suñu suñu bëgg-bëgg ak suñu lépp mais niñ ko defalee ñoom dafa rafet comme niñ ko waxee soxna Aminta ma nit wax dëgg yàlla kuy jokkonteeg moom la. courage bi mu mm-hmm. courage bi mu àndal. moom rek du moom rek mook ah, mook membre am yëpp. Mhm. wax dëgg yàlla courage boobu su tasoon ci diaspora bi. Mhm. problème yu bëri dinañ ko dinañ ko régler parce que nag mhm. comme ni may wax rek consulat bi du consulat kenn consulat ñun ñii ñoo ko moom. mu baax ak mu baax ak mu rafet ñun lay jëriñ. Hmm? kon nag suñ ci gisee lu lu ñàkkul ne peut-être ña nekk ci bopp ba seen gis-gis am na fu mu yeggul ndax soxla ji ñu war régler ci consulat bi dafa bëri mais parfois nag ñu rappeler ñu rappeler leen à l'ordre wax leen li nga xam ne euh, gis nañ ko te doxul foog naa ne loolu mooy démocratie loolu mooy démocratie te démocratie noonu la war a taxawee. jërëjëf jërëjëf Baye waaw mais hmm, Baye ma laaj la rek xëy na yéen. Euh, mhm. xëy na comme yéen a nekk euh, Milan mën naa ni daanaka Italie moom. Euh, ñaari dëkk yi nga xam ni euh, euh, ñoo gën a mag fii di Rome ak Milan fa la ñuy amee daanaka éco yi gën a mag tey jii bi may tàmbali rek maa ngi wax ci li nga xam ni moom mooy actualité nga xam ni la Morgese wax na ci oh. waa gouvernement bi wax nañ ci mu di probable parce que tam dafay jaadu ñu wax ko Sénégal yu bari man dañ may woow di ma wax ni ma mm. kañ la yëf di tàmbali ak nuñ koy tàmbalee man leen attention Euh, sanatoria mm-hmm. buñ koy def dañ koy voté projet mm-hmm. de loi la boo xam ni day jaar sénato jaar jaar assemblée mais rek ñun sénégalais yi dafa mel ni léeg-léeg dañuy fàtte euh, bari na ñu commencé véhiculer maanaam mm-hmm. xeetu sénatoria te ñun sénégalais yi toujours bu amee dañ ciy sonn lool ndax dañuy lekk suñu xaalis bu bari <laughs> ñun lañ ciy gën sonn ñun lañ ci gën sonn ndax boo xoolee manque d' organisation bi ñu am te ñun yaakaar nañ ni jënd contrat rek mooy suñu métier ban écho nga ngeen am foofu ci Milan Pape waaw Pape effectivement balaa ma tontu dama lay wax rek mooy yàgg naa ko wax mosoon mosoon naa dugg ci ñu mel ni yéen ak ñeleen waruñ di noppi mm-hmm. parce que comme yàlla def na ngeen am fi ay fan di yore fi ay responsabilité jokkalanteeg tubaab yi ñu mel ni yéen ak ñu mel ni man ak ñeneen waruñ di noppi métti na nag mais dañuy war di wax pour defar. Mm-hmm. waxuñ waxuñ ndax daf ñoo neex rek. parce que suñ sañoo mm-hmm. toog suñ kër. te xam nga wax ni mu jafe ñu lay déglu dafa jafe. Mm-hmm. Euh, mais nag mais <laughs> nag man mi ab sanatoria laa bi ma njëkkee ñëw Italie ab sanatoria laa fa laa fa laa laa fi tànnee laa fi fekkee ñàkku ne looloo <laughs> looloo tax. ma dugg sax ci mbirum immigration parce que mbirum immigration du moom laa fi ñëwoon mooy 2002 ba sanatoria ba jeexee ñu ne ñu ne chambre de commerce. chambre chambre de mm-hmm. commerce bu koo bu koo moo day may kay dama koy faral di nett bi toujours mooy suma première mm-hmm. expérience avec l'Italie laa wax train yi train yi dépare train yi dépare Milan dem Como yëpp dafa fees mm-hmm. ay sénégalais ñoo ñoo ko feesal. dëgg la boobu boobu nee naa la dégg ko ma sax italien ma ne ah naa ci topp xool mm-hmm. gars yi fu ñu jëm par curiosité rek. ba euh, mm-hmm. topp leen ñu wàcc chambre de commerce bi ñëwee chambre de commerce Como bi ñëwee gaari Como. taxi yëpp jeex na gars yëpp jël nañ taxi yi di utili chambre de commerce Como. Mm-hmm. <laughs> bi ñëwee ci chambre de commerce mil mil sénégalais ñoo rang ci buntu chambre de commerce bi. Hmm. ah man nag ma posé question ma ne waaw fii man gisuma fi naar gisuma fi beneen xeet. su xeet rek a rang. Hmm. xalaat waa suñ koy def duñ ko ci jagleel sénégalais yi rek question boobu laa jëkk. waa di ko def. <laughs> dégg nga sanatoria. suñ koy defal duñ ko jagleel sénégalais yi rek. ah man ma man mi de man mi de eh, man ci gis benn cas bu amoon Livorno ak ay dëkk yu am fii Toscana nga xam ni ay nit yoo xam ni eh, pratiquement sénégalais yi rek ñoo leen di raal waaw leen jox ay mille euros nangam ak nangam eh, te fi mu ne nii nangam nangam soo ci soo ci waxee ñu ne da nga da ngay ñaan non non mais c' à dire man keroog bi ma ba ma demee ba pour wax la chambre boobu nee naa la fi juróomi fan Mhm. mais ma ne xaaral ma dugg ci biir ma dugg ci biir gis benn waaye bu dëkk français ma wax ko ma ne ko mais fii dañ fi may kayit mu ne ma non non may mayuñ fi kayit pour ñi bëgg ent def créer entreprise ñu jox leen ula nu laa os ñu dem Sénégal <laughs> ak jël fa visa ñi <laughs> dëgg mais soo koy def il faut nga fay temm fiscal mais euh, mhm. marque de boll mais dafa meloon ni nag chambre de commerce boobu dañoo amoon benn ay marque de boll yu bees yu bëri ñu war koo jaay am hmm. ku kap ku am ku nekk de mèche ak ñoom signalé loolu ma kenn wax sama ma ne gars yi mbokk yi fii béyoon fi kayit am ñu ma ne yow déco italien sax nga naan béyoon fi kayit yow kañ nga fi ñëw bay wax ñi <laughs> donc mhm. maa ngi wax ni euh, may kayit bi ñu bari dañuy yaakaar ni maanaam mbël la bu bu immigré yi di am waaw waaw mi ngi wax nii Euh, ñi ngi xayma ci six cent mille émigrés yoo xam ni ay clandestins yoo xam ni amuñu kayit. exact ma def benn simulation bu ndaw ma ni sénatoriens yi ma fi xam yëpp dafay am una tantom buñ lay fayloo moo xam six mois de contribution. waaw forfaitaire waaw boole ci dañ lay dugal ci système contribu contributivo bi nga commencé di fay ay taxes. exact mooy état bi dafay dafay dafay dugal. par exemple six cent mille nouveaux travailleurs yoo xam ni dañuy fay du ñu fayee ko pratiquement exact mooy dañuy dañuy fay seeni droit te du ñu godéere lu ci ëpp ci dara euh, te loolu première step bi rek première step bi mu di euh, bu ñu lay defaral kayit nga xam ni da ngay dem préfecture di nga fay marque de bolo bu seize euro di nga fay mm-hmm. voletino bu trente euh, bu bu quatre vingt euro ak enveloppe bu poste trente euro loolu à peu près ça doit faire cent vingt euros. Euh, six cent mille la ñu wax man dama jël quatre cent mille boo su defee simulation quatre cent mille. nga mhm. jël leen quatre cent mille par cent vingt euros ñaata la. tout à fait. bokkul ak una bokkul ak una tantum bi nga xam ni. Euh, euh, dañ koy fay te lu ci ëpp daanaka sur six cent mille yi déposé le léeg deux cent mille daanaka duñu leen ko nangul. tout à fait. mu mel ni financière bu bees boo xam ni état bi daf koy dugal. exact te loolu. xam nga Pape mu ngi commencé première fois biñ ko defee woon deux mille deux lañ commencé woon loolu. Mhm. la première fois bi ñuy demandé fay un tantum ak fay fay le les les le les. non quatre-vingt quinze la quatre-vingt quinze lañ ko commencé. non fay kii fay yi fay quatre-vingt-quinze il me semble napolitano produit ñoo ko njëkk a en quatre-vingt-quinze mais est-ce que boobu doon nga fay boobu da ngay fay première si mois yi ah ok d'accord donc donc foofu lañ ko njëkk a mos mu neex jamonoy liir bi waaw mhm. waaw donc xam nga euh, maa ngi ko doon wax léegi sax euh, ci euh, suñu émission bi doon def avec diaspora vision di nga Euh, suñu régul euh, dañoo calculer ne suñu régulariser rek euh, ces personnes la un milliard de taxes mooy ci mi ci mi for tantu boobu ngay wax dina dugg ci kees yi état bi. un milliard ëpp na ko de. waaw minimum cest à xam naa ne peut-être six cent mille yëpp duñ leen mën a duñ leen mën a jël mais bien que nag en deux mille deux motoon nañ six cent mille personnes il me semble su ma souvenir. su ma koy fàttaliku. Mm-hmm. Mm-hmm. mais. mais euh, da ngay def chiffre pessimiste rek sans très très mais un milliard ba noppi trois milliards de contribution sociale loolu fa naa ne budget Italie munu munu munu munu koo bañ mhm. waruñ ko bañ mhm. parce que nag su fekkee su fekkee réew réew mi nag ñëpp xam nañ ne problème yi réew yëpp ci mhm. Europe mooy presque financière budget buy dox parce que fii Euh, xaalis bu ñëw tey dañ fa am fu koy dugal. Mm-hmm. problème yi bëri na ci réew mi. Mm-hmm. te nag comme niñ ko waxee Italie dafa am ñuy ñëw am ñuy dem. muy mm-hmm. les jeunes italiens maa ngi demoon Allemagne temps gis fa italiens yu bëri parce que jeunes italien yi dañoo am diplôme yu mag te diplôme yooyu euh, pour liggéey fi dafa métti parce que itali liggéey fi gën bëri mooy liggéey ndax salaire yi ñoo tax salaire yi dañoo baax condition contractuelle yi xaw a doy waar loolu dafa mel ni gone immigré yi rek la gën arrangé que doomi italien yi malheureusement réew mi demee noonu mm-hmm. parce que parce que fii ouvrier mille euros neuf cent euros huit euh, mille deux cent li ñuy fay ouvrier léegi wàcc na de ah léegi wàcc na de ak demandeur d'asile yi ak demandeur d' asile wàcc na. wàcc na donc ba est ce que xam nga est ce que xam nga maanaam Italie dafa créer une norme nouvelle forme de schiavitù légale boo xam ni. bien sûr. Euh, Salvini moo ko créé parce que boo xoolee tey jii man sama zone bi yow syndicaliste nga man syndicaliste la xam naa xam na li ñuy wax. zone bii ma nekk tey yi demandeur d' yi am kayitu six mois yëpp ñu ngi liggéey. ñu ngi liggéey non non loolu gën euh, naa ko euh, maanaam liñ leen di fay tey jii un sénégalais nekk fii normal xalaatul fayeku ko damay joxe exemple par exemple ñi liggéey ci fabrique bu chinois yi nga xam ni huit cent euros lañ leen di fay weer bi wala mille euros dañuy liggéey par exemple des fois six jours sur sept wala sept sur sept douze à dix heures par jour. exact loolu loolu loolu loolu Schiavitoulo la. Schiavitoulo donc loolu mooy. moy moy moy paradoxe bu Italie donc comme nous nga ko euh Italie moy gauche bi moy droite bi dañoo soxla des travailleurs. Mm-hmm. pour del pour pour soxla ay travailleurs. Mm-hmm. parce que l'économie, moko moo système mm-hmm. capitaliste il faut que kees y tourne. te su manqué liguey rek waxuma la sax Italie mais Allemagne bi ba ma demee ñu nga gëné yeneen loi pour jox euh, pour pour euh, pour pour accueillir les travailleurs extracommunautaires. Europe mhm. ñoo ñoo ko soxla. donc euh, six cent mille travailleurs te réew mi suñ tegoon su doon dañuy yombal kayit sax ñi fiy liggéey dinañ ëpp loolu suñ ko yombaloon. Mhm. suñ ko yombaloon. mais na comme li may wax rek comme li may wax rek xale yi yéen mbirum politique du ci suñu su mën nañ ko déglu waaye buñ ci buñ ci tenir compte parce que. tey ñaari politiciens yi ni ñuy xuloo suba ñoo ko mën juboo mm-hmm. ku ku seetaan ku gis na tey farce démocratique bu nga ànd ak cinq étoiles rek kuñ ko waxoon un demi doo ko gëm mm-hmm. na an ci ginnaaw doo ko doo ko xalaat dëgg waaw doo ko xalaat donc li may li ñuy diggal booy rek mooy mm-hmm. buñ euh, buñ euh, buñ dugg ci luñ warta dugg buñ lépp lu ñuy def nañ ko laajte euh, ñi nekk Toscana xam nañ la suñ buggee laajte nañ ñëw sa bureau laajte la nga teg leen ci yoon. Mhm, mhm. léegi yàlla def na seen euh, CADES boobu neen taxawal presque yéen fii ngi fi partout en Italie. ah. ñu nit ci nord bi fii ak mouvement biñ taxawal fii. Wow mais Donc, ce mouvement bah, mais au moins parce que vraiment depuis presque de dix ans j'ai compris que j'ai compris problème en termes de médiation sociale. Hum? et mhm. syndicale. Mhm. que sénégalais nga xam li xaw ci réew mi wàccee ko ci suuf wax leen ko ci seen lakk mhm. mooy voie bu mooy voie bu gën a efficace. dëgg na dëgg na waaw waaw. soo leen koy tojal nag da nga leen koy waxal ci suuf mooy voie bu efficace loolu dama gis ne dafa manqué woon li may wax. Euh, man man man même expérience boobu laay def fii damay dem. groupe oh, WhatsApp yi léeg leen expliquer. Oh, contrat national laboro yi yi ñuy dund ak par exemple naka la ñuy def ba accélérer ci yenn services yi en wolof waaw mu ngoog te loolu xam nga euh, duñ ko waxee ci euh, liggéey liggéey boppam la mm-hmm. parce que comme je dis syndicat yu mag yi ngeen bokk yéen nekk luñ fi rek pour Sénégalais yi pour ñëpp lañ fi nekkal dëgg la dëgg la mais rien n'interdit ñun ci suñ bopp ñu organiser wu euh, pour am des mouvements yoo xam ne moi je dis même syndicat social la le syndicat de travail mais syndicat social. c'est vrai parce que. moi médiation sociale moi, li nga je ne li ma koy ci biir communauté africaine la même chose je l'ai fait avec les philippins de euh, euh, de Milan. parce que philippins ils ci bëri wax ils soo leen gisi sax ñoom xaw nañ ci sax xaw nañ ci sori parce qu'ils ont ubbi nañ seen i association du def. di def service aux immigrés philippins. mais mais mais attention Baye Baye Philippines. waaw méngale ak ñun. waaw oh, oh, ah, parce que nag kaa ngi ñoom ñoom seen gouvernement daleen leen euh, ban ambassade mooy ubbi dimanche. waaw amul ñoom rek. non seen banque sax banque. Euh. dañoo am benn banque buy ubbi dimanche teg ci. loolu loolu loolu laa lool laa lay expliqué tey jii. <laughs> xam nga man désarroi bi ma am ci sunu état. c'est ça mon problème parce que euh, mm-hmm. par exemple c'est j'ai pas besoin de rencontrer le président Macky tout à fait on a besoin de rencontrer les techniciens. les techniciens tout à fait. Nous organiser leen filles parce que nous xamuñu nous Nous nous ñu nous

muy préfecture est-ce di ko am tey jii taxaw boo ñëwee ci dëkk bi di dajale ay ay sabar maanaam di woote ay ay ay fonds l'appui mais mais ñun soxlawuñu financement on a besoin d'être organiser waaw xanaa déggoon li ma la wax man dama boy kenn amul benn délégation ministre buy ti fii man ma dem ca dama koo boycotté dëgg la dëgg la du du ma ca taxawati dëgg la parce que wax dëgg yàlla depuis vingt ans que ma nekk Milan mhm. musuma gis délégation ministérielle bu fi def loo bu fi defal amal njëriñ ci rencontre yooyu mm-hmm. c'est c'est plus wane wu après nit ñi di joxante ay billets bi mais suñ demee Sénégal sax fàtte nañ la mm-hmm. Mm-hmm. kon nag mooy mooy toujours ci li may wax rek ñun suñ demee suñu bopp defaral suñu bopp yàgg naa ko wax ñàkkul ne da koy dégg naan defaral suñu bopp mooy li ngeen di def mooy li ñëpp di def parce que ressources yi xam-xam yëpp a ngi ci dëkk bi Hmm? ñu ci dëkk bi muy ci nord bi muy ci sud bi. foo hmm. dem rek. Hmm. am na sénégalais yu jub yu yu xam dëkk bi ni muy taxawee. suñ organiser wu rek dem ci ñoom day day mel te yow xam nga ne fi nekk nii nañ doon naxare sénégalais yi deux mille deux. nañ leen doon naxee <coughs> ba deux mille douze. kuñ ci nax fi nekk nii yow la neex. ndaxte. Euh, whatsapp yeeg euh, rajo yi euh, dafa gën yomb jafe woon na avant mhm. avant avant l'an wala ba deux mille jafe woon na mhm. kon nag li nga xam ne lañu ñu war a def rek moom laa koy wax mbokk yi mhm. ma ne leen bàyyi leen bàyyi leen téléphone yi di oote yi parce que ñun loi joxewuñ sanatoria <laughs> mais mais suñ lay oo day mel ni yow Kenya yi dogal nga te ñun dogaluñ. Mm-hmm, mm-hmm. ñun ñun dañuy faram fàcce rek expliqué ko looloo tax ma ne dee leen déglu rajo yi. dee leen déglu rajo yi di déglu mm-hmm. émission yi. di déglu émission yi. bañ a toog seen kër rek ñu ne di wax. di wax na lii di wax na li donc looloo tax rek ma leen di <coughs> may wax rek li ngeen di def métti na. non mais mais ne Massal ne li ñuy def. waaw waaw waaw waaw ñun ñëpp ñoo ko bokk. waaw mais mission. mais mission la parce que nag euh, wax dëgg yàlla euh, mission la boo xam ne ñun ñëpp euh, teg na ci suñ bopp te métti na mais nag nañ ko sant yàlla. suñu yàlla mayeen di wax nit ñi ñi di ñuy déglu mais li ñuy wax nit ñi. dee leen déglu rajo yi. Mm-hmm. ngeen leen déglu su ngeen dégluwul. Mm-hmm. bàyyi leen télé sénégalaises yi ngeen di bloqué <laughs> yi ngeen di syntoniser wu vingt quatre heures sur vingt quatre yàlla def na fii am na ay rajo am na ay outils am na nit ñu jàng am na nit ñu xam di wax. te mm-hmm. leen déglu. dëgg la te bàyyi te bàyyi lekk lekk ba suur rek toog sa kër rek oote sa téléphone. waxtu la neex ko on ni xaw ma ndax loolu xam naa ne da nga koy vivre comme ni mu koy. vivre ah, fii maanaam aw ma ci samedi aw ma ci dimanche nag. samedi am na. waxtu wu ne la ma nag euh, oh, dafa métti loolu. donc mm. li ñu war a def rek mooy nañuy déglu rajo yi peut-être euh, xam naa ne fu ñu waxoon sanatoria yéen xasida online da ngeen ko faram-fàcce yow ak Pape Demba yow ak Pape euh, nu mu tuddati beneen Pape bi. Pape Makhtar. Vieux waaw Pape Makhtar Vieux da ngeen ko faram-fàcce ak ñi ngeen àndal yëpp donc loolu daal mooy mooy mbir mi ñun liñ ci mën tamit ñu ngi koy def. Mhm. am nañ groupe whatsapp am nañ euh, am nañ benn support. bu ñu wax rajo mais nag ñi ngi xaar yëpp sa invitation ah. ah waaw non ah, bari naa ah. ay thèmes yoo xam ni war nañ ci mun a waxtaan man moom boo xoolee daanaka léegi dama jël suma cheval de bataille boo xam ni moom nga ma fekkoon may développé. mu di gone yi nga xam ni euh, dañ leen fi indi daanaka ñu faqir lool parents yi daanaka. ñooy godeere fii waaye xale yi daanaka am ñu fi euh, mbégte ndax boo xoolee daanaka dañ leen fi indi rek sànni leen fi. Euh, euh, loolu moom bëgg naa ñu def ci benn bés émission boo xam ni. ñun ñi nga dañ ci wax ci immigration ku nekk joxe ci sa njàngat ndax lu am solo la daal te jot nañu wax ci daal. alors amul benn problème Pape man nuñ koy wax ci rajo Xassida online ci laa bokk. Mhm. lu ma ca incha allah dëgg la pot pot saa ngeen jàppee rek. parce que mm-hmm. muy Modou Mbaye euh, muy yéen yéen ñëpp wax dëgg yàlla yàlla boole nañu. Mm-hmm. muy ñu xamante. dëgg la apprécié woon saa yi nga ko décidé rek. amul benn problème incha allah incha allah. xanaa di la yëg di la yëg rek ne. Euh, xam naa ne su mbir moomu jotee dinaa leen ci dinaa leen ko yëgal man mm-hmm. damaa dem convoqué convoqué directeur régional IMS bu Milan. ne leen dañuy dajaloo pour ñëw ngeen wax ak ñun lépp lu nekk ci mbirum prévidence sociale. ñoom mm-hmm. blocage. <laughs> non d' accord nañ. le vingt quatre waaw waaw waaw accord nañu waaye xam nga dafa nekk kooki boo xam ni kenn du ko nangu bi. waaw. mais xam nga xam nga benn paa la di nekk ci biir ak le le rëy waaw la la parce que question de xaalis bu bëri ci nekk. Hmm? <coughs> waaw première fois la sunu état euh, moo jógul sunu état jógul te it comprendreul dara ci loolu comprendreul dara ci loolu comprendreul dara ci loolu moom yaakaar na ni euh, luñ ko luñ ko woowul rek mosol ko ci rek moom amu ci njariñ te tey ji nga xool euh, kenn kenn moo ci liggéey tuuti muy inca hmm. xaw ci dox tuuti Mais exact. Sénégal, il, il, on, a, on perd des milliards, des milliards sur, sur ce, sur ce, sur ce temps-là. La damay delu ci première question bi moy jigen ñi jël sen bus jóge noara, dem taxaw rendre. Mhm. fu naa ne muy muy yéen muy ñun dañoo war tamit lolu suñ ko caytoo ba paré def lu mel nonu mhm. demander demander une signature d'une convention en matière de prévidence entre le Sénégal ak l'Italie parce que suñuy mm-hmm. xaar ñee aluñ ñu duñu ko defal no mais mais CADES CADES looloo ko bokk na ci li ko gën a njëkk a tax tax a jóg ndax CADES euh, li mu bëgg mooy liggéey ci mémorandum boo xam ne mm-hmm. euh, dana jox état suñu état outil boo xam ni au moins bés bu jógee war a jóg wala boog ñun ñooy jóg xëcc yërëm ni ko kaa ñu ànd ak yow ndax fii la suñu situation toll ndax état sénégalais xamul mhm. ñaata ñaata ñaata sénégalais ñoo nekk Italie xamul ñaata ko ñaata euh, milliards lay ñoo fi xam nga euh, xam nga dama lay jox benn kaar moom moo leen di rapatrier état sénégalais daanaka fii euh, ordinaire administration rek lay def tout à fait dama lay jox exemple rek dafa am benn waay bu nekkoon Torino am nationalité demander IMS rembourse euh, fay ay doomam euh, bam euh, ya nekk Sénégal te boobu carte sojourne la cinq ans yi mu mm-hmm. bañ <clears throat> mu jël benn avocat ñu topp ko tribunal condamné IMS ñu fay ko rappel ko valeur yi vingt neuf mille euros ci benn nit mm-hmm. man mi man mi gañe naa gagné naa ci ay procès yu bari man sénégalais. té ren jii est-ce que xam nga. Mhm. italien yi nek fi yëpp sénégalais yi IMSI dafa presque genn wàll gi IMSI dafa bloqué sen seen sen euh, sen demande d' assegno familiare ni len da ngeen di mhm. def autorisation. parce que bu ñu. waaw autorisation fay normal. léegi daf leen demandé pour ñu def autorisation. scamotage la rek ñu demander autorisation. mu jël pratique ça fait mois mi ngi nii pratique bi mi ngi ingiacenza exact boo leen laaj xam lu ñu lay wax in corso waaw xam nga yow ñu ngi wax ñooñu sax ñuy dund mais imagine ñi liggéey quinze ans vingt ans gaañu nekkuñu fekk seen jabar seen jabar ak Sénégal mhm. ah? te mu nekk cotisation boo xam ne dañ leen dafa war a dellu ci seen famille ñaata lañ ah du jeex loolu par carte la. wala ñu liggéey vingt yi Sénégal ñu nangu seen ñu dellu seen. ñi ñu war a jox seen pension ne dañ leen ko war a jox ñu ñu war a liquider ñu liquider leen ko mais da ngay gis. léeg-léeg ñu ñu bari ñu bari parce que tam am na ñoo xam ni. Euh, loolu aussi suñu manque d'organisation la bari na Sénégalais yoo xam ni. Euh, bu ñu mm-hmm. dem du ñu tàggoo. Euh, ba ba sax seen situation ñi ñu dëkkal duñ ko xam. non. Amne chinyon kam lesa, man gen chok legi den nou dokumen pou juge Senegal. Amne ims de yon ne dokumen yon. A, tou ba, atres pou douba. Liste la. Amne de. Mwen nou faye kou. Mwen nou faye kou. Mwen nou faye kou. Yon yop, emisyon yon men ni sen emisyon yi. Euh, Mbota yon men ni kades. Mhm. Euh, ak yelen, ak yelen. mais nag li ma war moo di man je suis certain que def manifestation pacifique gouvernement Sénégal du yëngu. Mm-hmm. on a gis noonu ngeen di def muy kii yeen Kades ñun fii Sala ak yeneen mm-hmm. association yu mag yi. ñu dajoo def un mouvement d'ensemble. moom rek moo tax parce que convention fekk Sénégal amul ak marocain bi. day mm-hmm. nekk fii yore juróomi dërëm nekk Maroc ñu koy fay assegno familiare. Euh, Cap-Verdien bi gën a tuuti Cap-Verdien. tuuti Cap-Verdien. waaw day nekk fii liggéey seen njaboot yi nekk yi nekk. yi nekk cap ñun ñu nekk fi nekk la première communauté africaine en Italie Afrique noire en Italie. plus mm-hmm. de cent cinquante mille personnes nekk fi di liggéey te mënuñ fayeeku dërëm ci seen famille yu nekk Sénégal. waaw te da xool ban place lañ fi occupé parce Italie dëgg fa yàlla donte ay Bukumpra lañ ñu placé. mais nag mm-hmm. immigration sénégalaise et c'est une immigration de qualité. de qualité kay ay eh, ñun ñoo indi ñun ñoo fi ñun ñoo fi indi immigration na ay jafe-jafe mais buñ demee ba ci biir boo xoolee proportion bi wax dëgg fa yàlla boo génnee parte vendita abusive bi wax dëgg fa yàlla ay opéra yi ñoo fi nekk di contribuer honnêtement ci système. Pape soo Pape soo demee Brescia Bergamo la la triangle Brescia Bergamo Milan. Mhm. nga xam ne entreprise métal métallurgique yi gën a euh, métal mécanique yeneen. am ah, ah ah nee naa la waxuma la sax ñu ngi fay ñoo fa bëri mais responsabilité. Mhm. responsabilité. am mhm. benn technicité am benn compétence. amna ci benn benn entreprise bu may netti benn sénégalais bo xam mirum mirum mirum métal métallurgie. moom su ñëwul plan plan bu ko ingénieur moom mën na ko mën na ko dagg. su absenté ditaa bi du dox. dégg loolu yëpp. loolu yëpp lu ñu loolu yëpp luñ lu ñu war a wax la lu ñu war a wax la lu ñu war a yëgle la mooy tax lu may wax bu ñu bàyyi rek naan di di ñu xas ay vous comprenez mais sénégalais yi nekk ci opéra di liggéey am benn. compétence bi wax dëgg yàlla bëri na mais du feeñ. Mm-hmm. donc bu <laughs> contrat bi dox ci mbo mbo mbedd mi rek la ñuy xool. te wax mm-hmm. dëgg yàlla euh, ñuy liggéey ci détails yi muy ci yéen foofu Toscana euh, affaire yi der yi Fona foofu la nekkee. mosoon naa fa ñëw ah. conchéria yi mu nekk ah. liggéey bu métti. ah <coughs> boo xam ne sun mbokk yi ñu ngi koy def te wax dëgg yàlla loolu yëpp dañ koo war di wone dañ ko war di wane te yéen xam naa xam ngeen ci lu bëri. donc xam naa ne perturbé naa sa émission. non non <laughs> du tout ça a été un plaisir jërëjëf. waaw waaw moo tax sax xaabaabal parce que. vraiment <laughs> jar na ko jar tout cas je vous donne ma disponibilité parce que ñun ñëpp benn lañ. waaw yëpp benn lañ. waaw parce que travail bi bi ñu def de de Euh, c'est un travail pour le futur. Mhm. information jàll nit ñi am réflexe bonne information. jërëjëf bañati ñu nax nit ñu tax ne ñu nax ay nit ci ay kayit fii. Mhm. li ñu fi nax doomu Sénégalais ci ay kayit rek xam na ne ay milliards. ay milliards la. dëgg la waaw loolu te loolu yëpp organisation criminelle yëpp dañ cee duggoon yal na ci yàlla musal. amiin amiin amiin jërëjëf añ sëñ Baye Diouf doon woote Milan vraiment nekk moom it euh, un acteur ci ci ci ci ci ci ci ci wàllu immigration ndax euh, maanaam mm, fële mu nekk créé nañ fa ndax euh, wax dëgg fa yàlla ñëw ci dëkk fekkoo fa dara nga teg fa lu taxaw ba nit ñi nekk jël le point de référence du lu tuuti kon nag ñi ngi ñi ngi sant bu baax di di gërëm mbokk yi nga xam ni aussi wax dëgg fa yàlla ñoom ñëpp ñi ngi ñi ngi dugg ci émission bi soxna Boussa bu Bergamo ndeysaan euh, mbokk yi Pape Makhtar ndeysaan ma nga Sénégal waaye mi ngi <laughs> moom mi ngi mi ngi li yox rek moom li yox euh, passion moo métti ndax boo tàmmee dara bu wax bi jotee ndeysaan euh, xol bi yëpp day nekk fii ñi ziar mbokk yi dugg ci biir ñëpp dugg ñi ñi yëglu ñi yëgluwul di ziar sama jëwriñ yi ñoom ab sëñ Abdoulaye Diop Baye Ibrahima Ndiaye ak mbokk yi nga xam ni mbar Mbargu Diop ndeysaan mbokk yi nga xam ni ñu ak ñoom bokk plateau yi fii donte eh, léeg-léeg eh, ñoom dañuy nekk ci yeneen thème waaye ñu xam ni liggéey bi yëpp benn la ndax li ñuy wax rek cathédrale moom buñ koy tabax wala juma ñu ngi tàmbalee ci ciment suuf ak béton ak ndox waaye bu ñu jaxasee ba commencé def mool yi kenn dootul xam lan mooy daan euh, waaye ku ci nekk am la ci fànn boo ci dox euh, lu ci mën si nekk rek mooy ñun suñu rôle mooy fexe li nga seet li nga xam ni moo di information bi nga xam ne moom la askan wi soxla ñu joxe ko ba askan bi mun cee jëriñoo te yaakaar naa ni euh, am nañ ci ay ay ay ay ay dox yi ñu ci def ay jéego yoo xam ni at yi wax dëgg fa yàlla yëfi changé na ndax man damay toog bés bi gën ngaa tuuti fukki nit dinañ ma woo te lu ci ëpp daanaka du ñu nekk Toscane defe naa ni bàyyi ak ñeneen ak ñeneen même chose la ñu am loolu nekk yokkute boo xam ni euh, bu ñu demee ba reconnaître ni ñun euh, wàll wi ñu nekk ñoo fi taxawal askan wi loolu euh, lu mat a la kon mbokk yi tey jii loolu moo doon diaspora tey le 19 janvier 2020 doon émission bu njëkk ci at mi ñuy ñaan suñu borom defal ñu tawféex ba at mi yëpp euh, ñu def ko dimanche bu jot ci defin bu gën a sell euh, yàlla may ñu wér may ñu may ñu tal ak euh, ak doole ak xalaat gu set boo xam ni des na ko mën a mën a liggéey jariñ askan wi ndax lii ñu nekk de du lu jar xeet ndax boo leen xoolee nit ku nekk réseaux sociaux ku nekk yaa ngi ubbi sa page ñi dañuy ubbi di saaga ñi di ubbi di def lu leen neex ñun ñu jël suñu euh, temps ni askan wi lañ koy jox kon war nañ ci war a gën a mën a góorgóorlu ndax luy delluwaat ci askan wi de dañuy ñaan bu jógee fii mu jógee bu demee fee bu fa suxatee doon gàncax bu doon gàncax bu ñu mën a jariñoo kon mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di sant Modou Mbaye Thiam Baye Fall di sant mbokki auditeurs yi nga xam ne tey yëpp suivre nañ ñu ànd ak ñun ci programme bi di leen jox dox daje dimanche ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf